lii tax ba sayxu jiili xër yanu lu kenn atanuloon ñii la sëriñ bi àndaloon ba muy aji ma tudd leen ñu ma ci tëb ngir fàtte leen bal leen ma ko man mat lamiin alxaaji baara faadilu bàyyi laa demoo ko wooyilu ni ko fajar na nga jëlu gunge sa baay day aji ren atam sëñ ibra ku sopp seex jiili lëkkat bokkoon na ca yoon woowa kët njàmbaar gu rëy la wane woon sëñ Seex Sayum sëñ bu Seex Jiili moo ko fab yóbbu ngir sëñ bi ak moom liñ juboo jaaxal na sax ña teewe woon sëñ Moodu Abdullahi it moom dër bi ànd na ca it digganteem ak baayam rafet mësuñ di wuute benn yoon sëñ daam roqee jatara moom boolewul jiili dara bu doon yonen mooy ay dara ma nga caaj góogale woon sëñam di mbàkkem soxna may muunatu kubraa ngeen ji ndey jarbaatu jiili ca kay ñooy bokk yandu ñooy fanaan foo waxe mbàkke nii busa waa kër sëriñ mbàkke buso mbokkam ma sëñ baaxir buso doomi sëriñ mbàkkeen ca woon sëriñ asan foofa la des cey sunu bis booba katiis kaaba ga dal la dal di ni allah benn yoon mbokka ma sëñ mataar buso moo def jumaa gede buso jataayu sëñ mbàkke buso moom moo ko toog mat li mu doon ab taalibeem di wettalam seex jiili rekk rekk la gëm bàyyi sekkub muritam bokkoon na ca aji woon ñii ñépp dañ ko doon yërëm naaj gi day diis ci cëram ñam àndaloon ñu koy yërëm def na ba far defaale leen man dóob sax da koo matal su yi daf koo col-colal farata kon jërul waxal ñii ma ko wax ñoo teewe woon nee nañ ba ñuy wër ka abaga xudóom nga ak ifaada ga waadax ga nag ak ñukku ga katan ga moo leen jaaxaloon ba ñu bawoo musdalifa ba génn jëm ci arafa seex abdu xaadir jëf na fa njàmbaar gu kenn fooguloon ba ñuy safa ak marwata nag dox bu ne moo fa jiitu nag dox na ba jeexal tàkk nag am ci bam nee ci rib ca madina daa mel ni dem na àjjana kontaan na bég na maare na ngir am na moom la mébatoon ba muy siyaare xabru ba ba toog ne jàkk sang ba daa dagal moom bopp ba tàggoo ba mooko ko neexuloon amoon na ab naar bu ko gis ni kaala gi ak ko sos sarif la dëgg kii ma gis mi ngi satoo ci sunu yonen ñëw na fa ay yoon nemmiku ndax bëgg sëñ bi xàmmi ko ba mu ji moom teyatu ko mu laaj sëriñ bi kan nga doon sëñ bi ne abdul xaadiri habdun li rabbin qaadiri hibu maahiri fa Sénégal fu wal watan yoor yoor la del si biir këram ngir sunna lii di ndigalam wadd xul du xan wasxab yitam hadiyatan lil jaalisiin bam ñibbisee ca jàkka ja la jëkk a sédd sëri ca ña daa jullee ca jàkka ja sàppe sa ñépp la joxoon sëñ Abdu mi ilimaan bokkoon na ca ñamu joxoon man mii di Ahmadul Lamin jox na ma koppati musoon